aussi voilà du. Ah. xam nga critère moom. Ah. xam nga quand tu quand tu booy def dara. nga nga nga nga prioriser teg say critères. Hmm. peut-être que loolu moo moo critère équilibré peut-être gouvernement bi def ci ay jigéen ñu bëri xëy na ñoom bi ñuy confectionner euh, critère boobu soit dafa sori woon walla bokk ci woon. Hmm. mais jàpp naa ne quand même jigéen ñi waroon nañu gën a am place. ci ci gouvernement bi parce que aussi bu dee compétence quand même jigéen ñi am nañ ko. Mhm. am na jigéen ñu bëri am nañ compétence y compris dans Pastef euh, man xam naa fa ñoo xam ne ay jigéen mënoon nañ nekk ci gouvernement bi ah parce que am nañ jàng bi am nañ jaar-jaar bi. Mhm. c'est sûr mais. peut-être choisir aussi c'est toujours éliminer saa yooy def choix moom boo jëlee kenn di nga éliminer ñeneen maa ngi gis benn post léegi xaw ma Fabrice ko dugal xaw ma kal la mu naan Fatoumata Zahra euh, ñeent ñeent ñeenti jigéen <laughs> ñeenti jigéen dafa mel ni euh, c'est le nombre de femmes du du président et du <laughs> et du PM. et du PM nekk quatre. <laughs> c'est c'est rigolo mais mais quand même mais jàpp naa ni bon premier gouvernement la aussi mënoo mënoo. Euh, mënoo jël lépp en compte mu mu mu yem loolu suñu borom rek ko mën mais je pense que le plus important mooy le résultat parce que mhm. xam nga lii yëpp ay commentaires la rek mais je pense que ñoom xam nañ ne et Sonko euh, le premier ministre le dit souvent dañ leen dañ leen yónni yàkkamti leen mhm. ñoom xam nañ ne nit ñi ci résultat yi lañ leen di xaar mhm. parce que en fait nit ñi aussi président bi aussi yi président l'a di que nit ñi aussi dañu fatigué il faut que très rapidement ñu jël ay matukaay yoo xam ne aussi dinañ permettre sénégalais yi ñu souffler peut-être que ñoom foofu lañ leen di xaar. donc moo tax jàpp naa ne bu fekkee ni gouvernement bi. néew na ay jigéen te mën a def ay résultats yu baax aussi jàpp naa ne ñoom Fatima dinañ ko nangu aussi hmm, ah. ah te ah, waaw hmm. te xëy na gouvernement yamul ci benn beneen yoon peut-être que bu ñuy confectionné dinañ gën a bàyyi xel ci li mu jigéen ñi ñeent nag quand même ndaw na. c'est peu ndaw na c'est important président ci par rapport ndaw ci vingt cinq personnes. Mhm. ñeent jigéen na quand même ndaw na. c'est important euh, de le souligner et de le rappeler également président par rapport ak li nga xamante ne aussi gis nañ ko ci nomination de poste. il y une innovation aussi. Uh-huh. Euh, boobu mënu ma ko bàyyi aussi c'est euh, ministre des sports femmes. <laughs> inspecteur sport bi xam na ko et certainement culture bi dina am benn secrétaire d'état bu ko assister donc moom tamit on lui souhaite vraiment la bienvenue et puis dans un terrain qu'elle qu'elle maîtrise et qu'elle connaît xam na donc défi yi koy xaar et puis on espère que avec elle le sport sénégalais va encore monter d'un cran même su fekkee ni tamit mën nañ jàpp ne aussi léegi sport sport dem na ba yegg foo xam ne aussi peut-être am na ay exigences yu muy laaj ñëpp xam nañ ko parce que sport yóbbu na fi daaneel na fi sax ay ministre ak yooyu. Mm-hmm. donc sport dafa am dafa am nu mu bindoo ci ci ci réew mi parce que aussi au-delà du jeu. je pense que loolu ñëpp comprendre nañ ne sport loolu dépassé na ko bu yàgg. Mm-hmm. moo tax état yi di ci dugal. koom bu am solo. parce que euh, mën na indi rentabilité derrière donc je pense que loolu yëpp xam na ko jàng na ko et je pense que voilà il sera en mesure de euh, vraiment régler la. service euh, je pense que bi mooy bu njëkk que ab yow ministre moom la doon wax donc c' est c' est rénovateur loolu am solo la mhm. euh, ñu ba pare soxna la boo xam ne dafa dafa dafa am njàng bi parce que mu ngi ci biir ministère ngi ci un cadre la et puis yàgg na fa am na expérience et puis def na jeunesse jàng na ko jàng na sport donc euh, loolu lañ ko formé donc jàpp naa ne moom tamit euh, comme ni ñu waxee ñeneen ñi euh, vraiment dina am na tous les atouts pour vraiment gérer le sport ci anam yu gën sax yi fi nekkoon. Mm-hmm. mais am na solo da xaaral ma ñëw par rapport ak deux postes yi nga xamante ne c'est vraiment important ñu gis ne ne nit ñi fa teg ñaari général euh, lañ fa teg muy général Birame Diop ak euh, général Jean-Baptiste euh, Tine kenn ki yor li nga xamante ne moo di intérieur kenn ki yor forces armées et on a vu beaucoup ont apprécié li nga xamante ne teg nañ ko foofu noo jàngatee li nga xamante ne ñoom itam teg nañ leen ci post yooyu ñi nga xamante ne moom la ñu yore tey. non c'est d'abord des mm. parce que postes yooyu tamit ay postes stratégiques la. jàppoon naa ni sax man bi may bi ñuy waxtaan fii jàppoon naa ni peut-être ay ay kii ay ay ministre mais ministère de souveraineté la. Mhm. yoo xam ne peut-être euh, euh, waa Pastef dinañ ko jéem a sax jël quoi ñoom euh, ay nit yoo xam ne yu ñu ràññee Pastef yu am dayo mais gis nañ ne aussi mooy li ñu wax rek parce que critères aussi yi ñu yi ñu teg pour teg gouvernement bi peut-être wuute na quand même ak critères yi ñu fi daan gis. ba tax na xëy na aussi loolu moo penché wu jëm ci ministère de l'intérieur ak ministère des forces armées ñu jox ko euh, ñoo xam ne quand même c'est des c'est des hommes mën nañ ne sax c'est des vétérans hein mhm. euh, rompus à la tâche et puis expérimentés aussi euh, et sur même su fekkee ni am na ñoo xam ne nag ils évoquent d'autres d'autres d'autres raisons hein mhm. voilà boo ci jëlee ku ci nekk peut-être Euh, aussi peut-être bi mu fi jaaree ak président Macky Sall am na lu taxoon ñu dindi la quoi. foofu si si si noonu laa doon jëm parce que également avant ñu jot pouvoir bi on a vu quand même euh, des pastefiens yoo xamante ne ils ont préféré euh, di di beaucoup de de de de comment dirais-je encore ay ay ay ay ay tuuma. teg ko ci ñenn ñi nga xamante ne tey moom ñoom lañu ñu jox li nga xamante ne moo di post yu ñu yor euh, ku ci mel ni euh, général Birame Diop on a vu que ne ne euh, waxoon nañ ko fi tudd fi affaire foncé et aujourd'hui on a vu que ne def nañ ay enquête de moralité parce que loolu la ñu waxoon que ne dañuy def ay enquête de moralité pour mën a xam ku ci nekk yellool nga post bi nga xamante ne moom lañ lay jox am déet. non dëgg la je pense que yooyu moom ay wax moom. du fi jeex Sénégal. comme yonent lañ bàyyi. waaw comme yonent bi lañ bàyyi comme ni ko Alsaan waxee li <laughs> ko tuumaal sax <laughs> donc je pense que mais quand man je préfère vraiment mu fukki ci euh, expérience bi ñu am c'est important aussi parce que li nga xam ne moom mooy ministère ñaari ministère yooyu. forces armées ak. Euh, intérieur intérieur dafa nekk ay ministères yu a am solo ci réew. Mhm. donc je pense que nga jox ko ay nit yu expérimenté et puis nekk seen domaine aussi comme ñeneen ñi. presque c' est les mêmes critères rek la ñu. la ah. foofu. Mhm. peut-être que ñii dañu bo c' est pas des gens de Pastef quoi. Mhm. Euh, maanaam ay ay militants du ay militants Pastef peut-être loolu rek mooy différence bi. mais quand ci li leen jox ak ci cursus bi ñu jaar ak expérience bi ñu am. nit mën naa dal xel ne loolu mën nañ ko ba peut-être dépasser ko. Mhm. maintenant loolu tamit lu lu ñuy rafetlu la gouvernement aussi euh, warul nekk rek affaire parti politique wala ñi ma mhm. jàppale. loolu tamit beneen affaire la bu ñu ñëwee ci peut-être les souteneurs parce que ñu bëri ñu ngi doon xaar euh, beaucoup de noms parce que simplement ay souteneurs lañu euh, Ousmane Sonko avant. Euh, élection bi waxoon na ne affaire bi du partage de gâteau et je pense que loolu aussi ça s'est vérifié. Mhm. parce que vraiment dem nañ jëli ay nit yoo xam ne kenn xamu leen fii jox leen ay post yoo xam ne njort mën naa rafet ne mën nañ koo yor. Mhm. donc je pense que loolu tamit ay rupture la yoo xam ne dañ koy rafetlu ah. en espérant maintenant euh, comme je dis rek que les résultats vont suivre parce que aussi la la